boo muy tuule nag moom jiitul Pastef du bokk ci élection présidentielle 2024 réew mi quotidien mooy wax nee na avenir politique bu Ousmane Sonko jamono ji lëndëm na loola Assane Samb na mu ko tuddee mooy procès du siècle yéen a kaay gi di enquête moom na mu ko tuddee mooy un procès toxique maanaam musiba ma bu kumbala gu rëy ci Ousmane Sonko mii nga xam ne yóbbu nañu ko si chambre criminelle yéen a kaay gi de la Soleil nee na njiitul Pastef di Ousmane ne moo dox digganteem ak Adji koy toppee yéen a Ahmed Thiam dib expert xelama ci jëm ci wàllum droit nee lu jëm ci wàllum date audience yi moo koy fixé maanaam procureur parquet bi mooy xool ban date la koy atte yéen a kaay la turbina moom nam ko tuddee nee na projet dangereux projet la boo xam ne bu yéeme la ci Ousmane Sonko ndax bu ñu ko tëjee maanaam dafa ñàkk ay droit civil am te nag bu ko ñàkkee du mën a bokk ci élection yéen a kaay wal fajëre nee na nag Ousmane Sonko mi daal bu muy mi nga xam ne mooy avocat Adji Sarr jamono ji moom moo ngi yuuxu victoire yéenekaay gi de Le Quotidien yor yora nee na procès bii nga xam ne yóbbu nañu ko chambre criminelle te mu nekk ay caaxaan gars ñoom décidé woon nañu yóbbu ko jugement février 2021 loolee Quotidien moo ko xamle waaye nag lii dafay gàkkal li nga xam ne mooy magistrature bi yéenekaay gi di Direct News xëy di ñu xibaar naan nag Ousmane Sonko mi nga xam ne yóbbu nañu ko chambre criminelle mbir yi nag jamono ji ma ngi takk suuf si moom maanaam ma ngi gën lëj de Les Échos ñu xëy fekk fa Ibrahima Mbengue mi ne mooy avocat Ndeye Khady Ndiaye moom nag nee na fan la gars ba jël mbir mi yóbbu ko jugement loolee moo ko jaaxal yéen kaay gii di Vox na avocat yi Ousmane Sonko ñoom nag danañu interjeté appel maanaam danañu def appel yéen ne Cheikh Yérim Seck bind na ko na dana ko ko porter plainte yéen kaay gii di Walfadjri ñu xëy fekk fa Cheikh Yérim muy tonto nee na Ousmane Sonko attunu li nga xam ne maanaam mooy am réewa te moom Cheikh Yérim Seck nee na lu jëm ci wàllum Ousmane Sonko ak li xew ci corniche bu ci bëggoon a wax dëgg maanaam ab livre lay bind yéen kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu rappeur bi di nit dof ni ki démb la ñu ko teg loxo waa sûreté urbaine ñoo ko jàpp garde à vue jamono ji si la nekk li ñu koy toppee appel à l'insurrection tooñ ay magistrat saaga foo xam ne ñëpp nga fa menacé de mort ñi nga xam ne ñoo yor wàllum yoona loolee la journal bi wax ne moom la ñu koy toppee moom rappeur bii di nit dof yéen kaay gi de libération nee lu jëm ci wàllum criminel la ñuy toppee nit dof Fadilou Keita mi bokk ci Pastef ba léegi ma ngi ci biir kaso bi suba ci àjjuma ji la ñu koy déglu ci ak xóota la yéen a kaay gi de la sa wax ci grève transporteurs yi jafe-jafe yu rëy na ko ci réew mi rawatina askan wi nga xam ne ñoo nekk Kër ma ñoo ñooñee mer nañu ba maana détaale ndax bu dem beeg dikk bi moo daal di tëgg tembe sa diwaanu Ziguinchor foofee oto dawu fa ca département bu Mbuur foofee tamit grève bi feeñ na fa waaye nag ca Fatick foofee nag ñoo jël coupe bi ndax Fatick amul benn oto boo xam ne daw na fa gars yi siiwur nañ bu baax a baax li nga xam ne mooy moo d'ordre bi journal na mesures yi nga xam ne jël na ko ci lu jëm ci wàllum xeex accident yi moom du ci deltu ginnaaw yéen kaay gi de la Soleil nee na démb gereew am na waaye nag ñi nga xam ne ñooy Dakar dem dikk yi démb daw nañu bus tata yi maanaam waa afti ñoom tim daw nañu ñi njaga njaay yi ñoom nag ñoo gereew dëggantaan yéen kaay gi di réew mi wax ci accident bi amoon ca diwaanu Kaffrine yéen na ñaar ne ñoom moom bus yi démb àtte ca tribunalu Kaolack ci benn atukasu Birantina moom tim ñu tëj ko lu toll si juróom benn weer yoo xam ne daf koy tëddee ñi nga xam ne nag ñooy attekat yi war a jël ay dogala danañu jël dogala ñaar fukki fan ak juróoma ci weeru janvier yi nga xam ne moom la ñu ma la yéen a kaay gi de la na lakk gu metti moo am ca Ranse de Dolé lu toll ci deux cent hectares yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu service du groupe réew mi ñoo ngi souhaité joyeux anniversaire président emploi borom African Leadership Awards journal bi nee na démb fukki fan ak juróom ñett ci weeru janvier maanaam 18 moo nekkoon anniversaire am gars yi feete nañu ko ñaanal ko wér gi yaram ak dund gu yàgg-yàgg yéen kay gi di sunu làmb xëy ñu xibaar naan ñu Bira Sène mi jiite CNG nee na Ada Fass ak Sarko ñoom dañoo nekkoon sursis ay nag li nga xam ne mooy règlement yi force gars yi danañu ko respecté moom Bira Sène njiitul CNG ci journal bi xëy tënk kàddu yëpp na mbër yi na leen leer ne du ñu leen bàyyi ñuy def lu leen neex Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de